ci ñi nga xamante ne ñoo di seen askan waaye bu ñu génnee ci loolu rek oustaz ñu duggaat tuuti ci li nga xamante ne moo di actualité ndax fan yi gis nañ mu yëngal réew mi bu ñu toogee ba gis li nga xamante ne suñu ko woon gis suñu mag ñu baax woote ko gis ñeneen génn di woote ay woote bi yonent ci réew mi di Sénégal oustaz loolu lan la ci oustaz di waxaat en tant que Sénégal loolu waaw du dara mm-hmm. xanaa ñi ñi bëgg a yëngu la yëngal ah. soo mu way ci dogul mm-hmm. yëngalu ko daa am ñoo xam ne soow lañ mais wayuñu mais ci jamono yonent bi mm-hmm. Musaylima wootewul yonent mm-hmm. Muhammad a ngi dund mm-hmm. mais lii day dara baa ngi dund mu woo Musaylima ci diini ma bind ko leetar ne ko min rasulillahi Musaylima ila Muhammad ibni Abdallah lettre baa ngi jógee ci yonent bu ñuy wax Musaylima jëm ci ku ñuy wax Muhammad doomu Abdallah yonent bi mënta liir mënta bind mhm. Ali ne ko liiral loola mu woo ndaw yi yabal jox leen lettre bi mu ne leen mhm. bu fekkoon rendi ay ndaw mhm. dagan na ma rendi ni imaamu Ali bind ci min muhammadin rasulillahi ila musaylimatil kaddaab mu ngi jógee ci muhammad yonent bi yàlla bi jëm ci musaylimi mën a fen ilaa musaylimatil kaddaab moo ko tuddee musaylimatul kazaab yonent bee ko tuddee ne ko da ngay fen xam nga ne doo yonent yàlla ne ko yee eh, bàyyil xuloo bi kaay ma jox la lu neex mu ne ko lan la mu ne ko wax leen ne fëtoo bi suuratin min misli in kuntum saadiqina min misli yi lu garaaw na nag téye leen baat boobu min misli yi waaw moo mooy affaire bi waxul indi leen téere indi leen seen alquran yi bopp mhm. indi leen alquran ju mel ni alquran ji mhm. site internet bu mel ni deux cent vingt et un laa soxla bu mel ni deux cent vingt et un waxuma site internet bu mel ni deux cent vingt et indil ma ko. Sénégal Buzz deux cent vingt et ah, moo mu jeex. Uh-huh. indil ma boobu rek. Uh-huh. ay deux cent vingt quatre waxuma deux cent vingt six Sénégal Buzz deux cent vingt et indil ma bu ni mel. nga wër wër Iran wër ba bëgg a dee ne mënuma ko am ñu ne ko tënkul ci bii. Uh-huh. fa ëttoo bi sóoratin min mislihi ñiy woote yónent nañ indi saar wu mel ni at nañ indi benn saar rek bu niroog alxuraan. xam nga lu musay li ma def. ba ko yónent ba wax loolu dafa dem seeti benn waaye ni ko waaw yow alxuraan yi Muhammad ji mokkal nga ci dara. mu ko sóoratu naazaat. wa naazaati xarxan nastan. mu ne ko xaaral ma soppi ko. def ko alxuraan. def wa taaxinaati taxnan. wala aajinaati aajnan. wal xaabisaati. xabisan sadaqallaahu al yàlla ne ko yaa mën a fen mu ni maa ngi waat ci jigéen ñey wal dugub yëpp bañ ba pare maa ngi waat ci jigéen ñey mooñ dugub yëpp bañ pare maa ngi wat ci jigéen ña koy def cere ne yàlla wax na dëgg yàlla ne ko da ngay fen da ngaa bëgg a lekk rek waaye loolu du alxuraan xale yu góor yi nag jël ko def seen portable yi wa taaxinaati taxnan wal aajinaati ajnan wal xaabisaati xabsan téléphone boo gis mhm. gars yi def nañ ko ci ñu ne alxuraan ji moo gën a gàtt moo gën a wér mhm. mais lii du alxuraan mag ñi di ko jooy li la dal dal mag ña mhm. am ñu ñëw ci mag ñi ne leen waaw alxuraan yi monsieur li ma ji te ngeen ci jóg yëngal na réew mi comme li nga ma wax yëngal na réew mi mooy coow nag mag ñi ne leen xam nga lu koy faj nañ yónni yàgg waaw bu maam yàgg demee bu del si indi lu leer eh. yónni leen yàgg du ay yonent lañ du mm. tabax nañ kaaba uh-huh. kaabaa nga fële yàllaa ko wàcc fi la ko seen maam aadama fekk aadama mi leen jur mm-hmm. fi la ko fekk mm-hmm. ñu tabax seen gos di ko wëral seen bopp mm-hmm. yàllaa ngi fi ñu ngi fi te yàlla wax ne ne ad diinu lii wax dii diine bokkuma ko kenn may borom ku mën a yàqal yàlla dama lay laaj ku mën a yàqal yàlla ah, alors li yëngalul kenn xam ku yëngal dof bi ci des ma wax la kaaba gi fu mu jógee jàng nga. boo jàngul déglu nga. jëm jogul tabaxul Kaaba. Kaaba ga. ndax tabaxul Kaaba. tabax na Kaaba kon gii ci kaasamaa lu muy yooyu ci lu muy jëriñ. waaw ah. xamuñ ni ñun jàng nañu loolu bu yàgg. tabax na Kaaba gu dàq seen gos foofu. ndax buur la. bi ko tabaxee ba yeggal nu mu def. daf ne Kaaba ga may dégg ci arab yi laa ba kenn dootu fa aj na ñëpp ñëw fii ñu dajale fi alal yi. am ñu fa jaar guddi takkal ko saboté affaire xam nga lu dul dëgg dañ ko yàq. waaw <laughs> a yàqu. yëpp a yàqu lu dul dëgg du <laughs> dem. Uh-huh. ñu saboté ko ñu ne ah, mu ne arab yi la. Uh-huh. te arab yi taluñu ko. mais bëggoon naa dal ci kaw kaaba gi. Uh-huh. mu départ ak mbooloom ak dooleem na day màbbi kaaba yàlla toog fa mu toog ne pat. gis nga yow yaa ne fii di coow mais yàlla pare na. yàlla noppi na pare na. waaw jii bu du loon dëgg du jógee màkk dem midin bay yegg si fii. Mhm. yaa ko gën a tey. Mhm. bu du loon dëgg du yegg si fii damay wax gars yi ni leen noppal leen seen bopp ak tariixa mag ñi tariixa yi mënu leen ci dara bu du loon dëgg yàlla jëlee na ko fi. Mhm. ana suñu maami ceddoy ana xalam ya ana yàpp wata boor ana cere njanjaja ana maye jaam ya jeexul ana sëñ Tuubaa ana alaaji Malick ana Limaamu Laay ana Cheikh Omar ana Cheikh Bou Kounta mm-hmm. ba àdduna tukki du fi jóg mm-hmm. ku leen iñaani yaay dee sa xol woow rek nga dee ñu suuli la ba ñu jóg yi ne day màbbi kaaba ga mm-hmm. xur bu ñuy tuddee benn gorob bu ñuy wax mu xammas seen gëléem nga xam nga nu mu tuddoon Mahmoud la tudd xam nga lu ñu koy dàkkantalee Abul Abbas borom njàmbaar lu immeuble rëy rëy bu ko mëkkee mu daanu moo war a màbb kaaba gi nag ñu jub màkk gëléem nga wàññeeku bu séeri yi ne keroog laa mës a gis bàyyi ma bu ëpp xel nit ñii ne màbb ñay wane màbb ma ñu lakk ko dagg génn ba def ko lu ne mu lànk ñu toog a toog rek gis jaww ji fees ak picc mm-hmm. ay përëntaan picc yu ndaw waxuma su may wax de alxuraan lay nettali de mm-hmm. jàng nañ ko picc yi wàcce xeer yi waddal xeer wu nekk muy rey ci digg bopp bi lay dal bënn put gi bënn dënn bi bënn suuf gi wàcc nga daanu dee mu rey ñëpp mu des kenn ku war a yóbbu information yi ci seen dëkk ba mu yeggee nag ba mu yeggee di informer ñëpp dee nañ picc leen rey picc yu tuuti waay ah waaw mu mel nii nekk xeeram la doon indi dal ci bopp bi mu faatu mm-hmm. alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiili alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababila yebal picc yu bëri doole te bëri mbooloo tarmihim bi hijaati ñu leen sànni ay misil yaa ngoo min sijilin moo la wax ne misil la tarmihim bi hijaati min sijil xeer yu am safara fa jaalum ka asun makkool nga seen ñu rangale ne ñoom ñëpp ñu maase dee ci benn bis la yàlla rey ay millions yi doomu aadama yàlla rey du dara ci moom parce que bindu dara ci moom waxtu yu may wax suul nañ ay millions waxtu yu may wax yàlla bind na ay millions du dara ci moom ñu dund ñoru ko ñu dee ñoru ko nga jaamu ko ñoru ko nga bañ koo jaamu ñoru ko kon jàng nañ kaaba googu fa borom mujj jàng musaylima dañ ko mujj rey kon ñu mel nii di woote fu mu nekk nii ban taxawaay la mag ñu di di nga xamante ne ñoo fi taxawal lislaam war a taxawaay ak ñoom. yoon toog seetaan leen yoon yàgg rek. toog yoon yàgg rek nañ a yàgg rek maanaam luñ leen dara. parce que xew-xew lu genre lu musaan am Sénégal dañ naan na nitu diine génn wax na oh, kilifa wax. wala kaay ma wax la nag. Mm-hmm. Pape Serigne Mbaye Mansour. Mm-hmm. Baye Muntaxaawu. Mm-hmm. Baye Abdoulaye Thiaw. Uh-huh. Serigne Muniru Njegéenoo. Serigne Cheikh. cheikh euh, sëriñ Abdou xaw ma nan cheikh euh, euh, Abdourahim mhm. ñëpp ci yem. Mhm. li leen war moo la war. Mhm. diini ji ñëpp ko war a taxaw. du ko sant Mbàkke du ko sant si. du ko sant joxaani kuy jullit rek diini ji da ko war a taxaw dama laaj la benn laaj. tuubal ci lislaam da ko yóbbu Mbàkke wala si walla jullit bu ne sañ naa tuubal. <laughs> jullit bu ne sañ naa tuubal ni jullit bu ne sañuy tuubalee noonu la jullit bi na war a taxawoo diine mm-hmm. du sëriñ si rek du mm-hmm. gouvernement bi rek su fekkee daa am ñu leen gemb mm-hmm. danay ànd ak ñoom jóoru sikk sikk nekku ci diine ji nag dañ ko wër ndombo xam nañ ci dara diine ji fi mu ne dañ ko wër ndombo liñ bëgg mooy écraser ko parce xam nañ ni diine rek mooy wér dëggu yàlla dëgg mooy loolu mais fi mu ñu ngi ko wër ndomb pexe yu ne ñu ngi koy nas te ñi koy nas ñi wuñ ko fësal jamono deux mille vingt bii ñu ne deux mille vingt du ci la ñu ne wax ma ñaata sëriñ yi ci faatu waaw na trop ñàkk nañ ci ay nit borom ay kilifa bëri na sëriñ Baara mhm. sëriñ Sidi Maxtaar mhm. sëriñ Abdoul Aziz mhm. sëriñ Cheikh sëriñ Mansour Serigne Pam Moustapha Cissé. Serigne Maodo Touré. yàlla dafa roñ ñi mu rus ñaap yóbbu. ma ne gars yi kon nar na noo duma. ba ñooñu demee lañ indi korona corona. ñoom dañoo dem rek. corona ne leen maa ngi nii. li la gën a yéem mooy xoolal xale bi gën a tuuti xam na corona te xale bi gën a tuuti xamul Muhammad. garaawa lu garaawa lu garaaw loolu noonu. waaw dafay tax damay ñëwaat ak oustaz si benn point boo xamante ne fu mu nekk nii bu ñu nee politique des enfants ñu bëri dañ naan ñu si daara yi waaye fan yi ñu ngi gëstu ay affaires yoo xamante ne ci jouet de Noël yi nga xamante ne ñu ngi nekk Sénégal am ay produits yoo xamante ne dafa am sàngara ñu koy utiliser loo xale yi nga xamante ne xamuñu di ko jaay ci boutique bonne politique moo war ci ndaw réew mi oustaz comme ni nga ko waxee léegi. gis nga gis nga loolu. Mhm. bul tudd état. Mhm. tudd ñu koy jaay tuddal mhm. way jur yaa jur sa doom loo ko doon juree kon mm-hmm. yaa mëtee ko jur di yaa takk mëti indi mm-hmm. ngeen jur seen doom am na lu leen ci war xuu mm-hmm. anfusakum wa ahliikum naara yàlla ne fexeel ba yiy xew di musiba bu mu ko dal fegal ko sa bopp fegal ko sa njaboot kullukum raain wa kullukum masoon an raayati ëllëg yow lañ koy laaj kon li jiitu mooy yaral sa doom neel benn benn soo paree jàngalal sa doom neel ñaar ñaar soo paree niteel ko mhm. neel ñaata ñett mhm. ku nitee ki du naan sàngara kon dafa mel ni fi nekk nii waajur yi dañoo retraité seeni doom dañoo daw seeni responsabilité ci seeni njaboot mhm. man maa la ko wax man Iran maa ko wax te man ku ma tontu yàq nga ko ndax du ma déglu. man moom tontu ma yàq sa tontu la. commentaire ci man yàq sa commentaire la muy lu baax muy safaan man du ma déglu dara man buur laa. Mhm. dara du ma ko déglu man bañu ma ko gis nga soo bañul kumpa. sa mhm. àdduna neex soo bañee kumpa sa àdduna naqari. Mhm. parce que da ngay bëgg bis boo xëyee xool lu ñu wax. te da nga dajee ko la saaga. mi parents yi ñoo démissionné ci njaboot yi. ma ñëw. yow yaag sa soxna boo amoon soxna te mhm. ngeen am ay doom yu majoré gun mhm. ngeen dem tribunal ñu tas sëy ba mhm. kuy jël doom yi du soxna yi ku jël dund ba du yow yaay dundal jigéen yar waa léegi nag yow boo xëyee dem dam yekaay ba ah. baa footballu kaay ba sa jabar dem ca marché ba jaay jën léegi xale yi ku leen di yar nee ma mbedd mi <laughs> mbedd ñoo ñooy naan sàngara si nag te waaye ñooy naan sàngara si nag ah gannaaw gisuñ ku leen yar mais dañ leen inna hadaynaahu najdayn imma shakiran wa imma kafura xale dañ koy orienté yar ko teg ko ci yoon muy li ma waxoon ci wàllu corona bi teg nit ñi ci yoon lii day wàlle lii du wàlle moytu leen lii ti ngeen def lii xale loolu lañ koy def alxuraan wax na ko yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma yar leen seen doom yi jàngal leen alquran te ngeen yee leen ba ñu nite intellectuel du ko jàng intellectuel muy ku nite jàng day dara te yàlla wax ne masaluhum ka masalil ximaar yaxmilu asfaara yàlla nee na am nañu jeexal téere yi yépp waaye ñoo mbaama yem mbaam muñ sëf ay toni téere xam nga lu mu ci am diisaay ba dong mais mënul ne xaalalaaw xaala rasul mm-hmm. bëri na lu ñuy taxé sëriñ si sëriñi tarixa yi di ko taxe état ti seen yoon nekk ko ci ku ne ba ngay takk jabar état takkalu la ko mm-hmm. sëriñ bi takkalu la ko ba ngay ngénte sa doom ngénte luñ la ko kon yar ko soo ko yaree tolof tolof yi ngay dégg du ci dugg soo ko yarul nag mu indi len lu ne nga fekk ko ci lu ne